L'État bi faciliter état bi banque la jox pour nous faciliter lebal hôtelier yi donc encore une fois nous ñu ñu subventionné et ce que nous avons ñu président de la république a fait ko pour pour appeler le personnel Maintenant, quand nous déposons demande de de crédit bi ku ci dugal leneen lu personnel dañ lay rejeter da ngay def trois mois personnel def sa facture ndox sa facture courant c'est lan la financé moo ngeen gis que sur une enveloppe globale de plus de 15 milliards de francs pratiquement 3 milliards mo ci ci pour financer l'ensemble du secteur donc malheureusement nit yu bëri dañu japp ni que état bi dafa subventionné moo tax di di daw di déposer dossier yakar ci jël euh, il faut que ministre à travers ses organes de communication mu léralel nit yi parce que télévision da kay wax journaliste yi dañ télé que de ñu financé de ñu financé de ñu financé certes jàppale nañu mais ci ay bor la ñu jàppale bor yi nag c'était c'était pour subvenir tenir entreprise pendant trois mois Madame jàppale personnel faire face aux charges. satisfaction le bu rëy rëy boo euh, ministre du tourisme bi nga xamante ne ñëwoon na sale fii dafa am la nga xamante ne nañu ko. la mu ñu digoon mooy chaîne de valeur bi nga xamante ne tey mooy jaaykatu jaaf yi nekkoon ci suuf ñëpp ministre bi jël na leen en compte ci préoccupation yi nga xamante ne mooy Covid 19 bi. ci kaw loolu kon ku ci ne am na lu mu la alloué loo xamante ne moo la cay topp ci wàllu jàppale la pour que nga génn ci situation bu métti bii ñu ne. noonu it la ko defee ci hôtel yi noonu la ko defee ci restaurant yi képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci wàllu tourisme ministre du taxaw na tey jàppale la à travers les gouverneurs des régions. donc ñun duñu ko def lu dul di ko yóbbante sant ak au auprès du chef de l'État bi nga xamante ne xalaat na ñi nga xamante ne ñoo nekk ci base chaîne bi ñëpp mu jël leen en compte loolu rafetlu nañ xam nga mbir bu tàmbalee te jeexagul dañuy dem par étape aujourd'hui ñu ngi ci première étape bi nga xamante ne mooy jàppale déjà ñi nga xamee ne sonn nañu loof nañu ba fi mu toll ni amatuñu tànk ñu taxawee kon ministre bi bu ñëwee dolli leen doole yaakaar naa ne dina baax ci deuxième phase bi ñu ngi jàpp ne ci relance bi dinañ ko préparer parce que saison touristique ku ne ku ne xam na ne octobre la daan ubbi donc yaakaar nañ ne balaa octobre lépp lu nga xamante ne amoon na ndëgër laay dinañ am fu ñu jàll foo xamante ne wax dëgg yàlla bu ñu fa jaaree jaakaar naa ne lii euh, solution yi dina baax ndax nee naa la sànq 200 milliards la ñu joxe pour fonds de garantie. képp koo xam ne bëgg nga créer entreprise touristique képp koo xamante ne bëgg nga jëmmal say say structure touristique loolu dama defe ne c'est la première fois dans l'histoire touristique du Sénégal et le chef de l'État mérite aujourd'hui toutes nos félicitations et tous nos encouragements monsieur le ministre soyez remercié par l'ensemble des acteurs tey nag ñu ngi fi daje ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonent bi ci ndaje moo xam ne la mbégte la ci d'abord ni mu demee ci am kilifa yoo xam ne dañu am vision en l'occurrence le président de la République Macky Sall bi nga xamante ne bi mu déggee ne Covid 19 dugg si na mu xam ne wax secteur du tourisme vraiment mooy deuxième mamelle de l'économie du Sénégal mu ne nag foog ma jàppale ñi milliards yu bari jox leen jël le ministre du tourisme monsieur Aliou Sarr bi nga xamante ne moo fi en tant que ministre du tourisme di a di def liggéey bu am solo di jël nag moom li muy wax di méngoog jëf parce que gis nañ ne y juste 20 jours la ñu toogoon def fi benn réunion te yéen mot ngeen ci ñu waxtaan ci 20 jours après en mode fast ni ma koy waxee ñu ngi nii tey di def remise symbolique de chèque kon gàcce ngalaama bi ñu amee autorité yu mel noonu yi nga xamante ne xam nañ ne bu ñu soutenir acteur yi rek macha allah bés bu fi liy jógee euh, dina yombaat pour entreprise yooyu mun a taxaw te employé ba ñu ñàkk seen liggéey. dëgg la milliards yu bari la naam mi ngi toll ci benn milliard 173 millions ku ko dégg nag danga naan bari na waaye lii. Euh, cëgg bu njëkk bi la rek mooy ñi déposé mais ñi ci des bu ñu xaddi ñoom it ñi ngi étudier seen dossier pour ñëw pour man dama naan bareegul sax parce que ku dégg tourisme di nga ne sali te ku wax sali ne région de Thiès te ku wax région de Thiès ne nag moom mooy euh, poumon du tourisme au niveau du Sénégal entreprise yu mag nekk fi ay hôtel yu mag a mag a mag ay agence de voyage ay guide donc ñooñu macha allah bu ñu leen joxee li ñu leen war a jox sax montant bi dina romb foofu te méritoon nañ ko ndax nit ñoo xamante ne dañu am kàddu di sàmm seen kàddu ndax boo ko xoolee ci seen ay njiit ku mel ni président Racine si wala président moom du Sow wala Pathé Dia mi représenté woon léegi sax récipiendaires yi xool ci guide yi xam ne ñooñu kat ay nitu parole lañu te kat xam nañ ne xaalis bi bu ñu ko fayul dina tax ba yëf yi gën a nërmeelu waaye bu ñu ko fayee nag dina nekk fonds boo xamante ne nañ ko teg si BNDE mu nekk crédit livre bi nga ko jël boo delloo sa morom jël mu permettre secteur bi am fonds boo xam ne dina ko permettre mu survivre te lépp lu ko mën a dal te du soxla keneen ku ko jàppale.